waaw waaw good afternoon. Good afternoon. PDG bi. waaw moo nekk nii de. yow la. non déedéet déedéet. yaa PDG bi naka mu gee. waaw.

am ngeen programme. Thank you. wax bi waa liñ tool tuuti ndax temps amul sa jotaay bi ñu fi bëgg a yàgg si biir gàttees parce que liggéey bu yàlla la ñu ngi nuyu bu baax a baax imaam Thierno Ibrahima Ndao di nuyu suñu bàyyi toog bi baax a jaay mi di toog baax fàtte nguuf ak naa yi ñu toog si ginnaaw yëpp nuyu Hadj Malick Maodo nuyu Samba Ndiaye nuyu suñu imam Fall Papa Fall nuyu Aliou Thiam nuyu Mami Diagne yëpp di leen jaajëfal su toogaay boobu ba léegi ñu toog di xaar waaye ki ñu doon xaar parce que na si jàmm ñuy Pape Faye ñoom ñuy toog muy wóoruloo ay ñooñu seet fii si jàkka yi ñëw këram ñëw fi nga xam ne mooy jumaa fi nga xam ne fii la lépp am nekk fii lay jullee tabaski fii lay jullee koy fii lay def fii yëpp yàlla dogal ak liggéey bu mu nekk ak tënk xëy na bokkutul biir jotaay bi waaye kon yaa ngi koy bokk ñu nangu ko bu baax ndax li mu nekk ñëpp la Sénégal tey ndam lépp ndam ñëpp la sa uti ba yàlla def ko ci li mu li mu ko def muy le roi ci li mu nekk muy pare bi muy génn fii di dem loolu rek lañ doon xaar ci moom tey ñi mag ñi suñu toog seen xol seetlu na buur ndax doomu unité gis la dem uti am na benn rat boo xam ne ci mala yi bu génnee di dem di uti lu muy lekk borom bu uti lu muy lekk buy dem day ànd ak moom bu demee mala mooy jàpp daal mara bi bu jàppee day def andi ko borom bi moom mara bi mooy jël li mu jàpp dem togg ko lekk ko mara bi dem tëdd fële jikko jooju nag la doxee ak ñun waa Iblis dañu toog fii di ko xaar mu dem liggéey mais gis na tey bi mu réussir dafa ñëw toog fii nga xam ne fii la a nekk tey lu ko war a def fii la ko war a def ñu ñëw defe ko kon Maodo man yaa ngi lay sant bu baax dina gërëm comme yéen a moom wax gi nag ndax yéen a ñëw ñu xamaguñu leen xamaguñu li ngeen indi dégg nañ message bi rek dañ doon ubbi nuyoo la borotal say kàddu yaa ñi nga àndal bu nu paree nag li nga xam war nañ ko si def bu ay kàddu dëkk bi man maa ko yor ci ndigalul imaam ak ñi mu toogal ñëpp toog leen ñëpp ñoom sax na seen ndigal laa ko mu delloo la kàddu yi ndax li nga def nag ñun mën nañ laa waxal parce que dëkk bi nga dëkk waaye tamit mën nañoo bàyyi nga wax sa yéen ba pare ñu door laa wala ndax mën ak ci laykat waaye lii nga bëgg a def te def ko ba pare ku ko def yàgg naa dégg gaa yi kon koy waxee waaye tey jii tamit dafa di nga def foofu ko commencé def ay fan nag booba bàyyi góor mi ngi dund bàyyi ma sekk mi ngi dund imaam Diop mi ngi dund imaam Sall mi ngi mag ñëpp mi ngi dund ñu commencé ko tey nag fi mu ëgsi nii sant yàlla rek def nañ ci valeur téeméeri million li may wax xam naa ci dara muy cent millions en français ban commencé ba léegi te bàyyeegul waaye fi nga ñëwee tamit loo baax ndax boobaa léegi génne woo ci sa loxo waaye ba tey tamit yaa ngi ci dugalal sa jumaa ji ba ñor ko ba ku dégg danaa jumaa ji mu mënuloo di tabax une église waaye ji ma toogal di leen xam ne waaw waaw gis ngeen boo dugg si quartier bi sax li yàlla dogal ci yow mooy danaa jumaay muurloo ko di muurloo loolu dogalu ko yàlla la boo xam ne yàlla lu ko neex lay def te looloo war a am te am na bu ko waxoon jumaay keneen sax mu ma fu muy metti mu doon lay metti waaye lii def loo neex ndax sa jumaa buñ ko dee wax suñu njaboot la kon yal na yàlla sàmmal foofu ñu toll nag mooy fi ñu toll ci cent millions yi fa lañ toll waaye gis nga liggéey bi gisal nga ko sa bopp boo jógee nga jaar ni dem ba fële ci biti parce que fële ñu taxaw na ne suñu mbir marron bëgg nañ ko karole lépp bëgg nañ fee boo génne te bëgg ñu fi gis benn pepp suuf biir jumaa jën ni mel nii ci biti bëgg nañ ko karole bëgg nañ tamit def fi loo xamante nii ku dugg quartier Modou Lo boobu ko ñu Modou Lo xam ne nag jumaa ji fi jimi jimi jumaa Modou Lo ju yenn jumaa voilà Ibrahima Fada ah. loolu rek lañ bëgg mosoo bàyyi nag dafa tey yaa ngi parce que weer yi nga ñëwee nii fi nga ñëwee ci weeru yërmande yi fekk ngay gën dañ lay ñaaxaar ñu la saxaat naa la demal nga rëbbali waat te nga ñëwaat nag kon nag moom ñii dee ñu ngi door a commencé te yàlla àgg ak jàmm nii fii mu toll daal bëgg na ba ñu ko inauguré nga matale lépp yal na ko yàlla yombal yal na yàlla may position boo ko def yal na la yàlla bàyyi sa sutura yal na la yàlla bàyyi sa barke yal na la yàlla bàyyi sa wërsëg bàyyi Ibrahima ba ne toog daal bi sa wéy jur bi dund lay ànd ak moom ba keroog bi mu génnee àdduna moo ko defal sama kanam tëral ko. jullee ko joxe ndigal sëñ bay at bu doon sëñ jam sëñ bay at yónnee jullee ko yaa joxe ndigal ba mu jox ko wóoru bi danaa rek yaa ko jullee moom suñu bàyyi ma sekk ak suñu papa maam sàll ñoom ñi fi nekk yëpp ak sa wéjur fii la daan taxaw fii nga toog laa taxaw ñu bàyyi wóor kon fii nga toog tey ñu ñëwaat la doo defaat sa toogaay heureusement nag bi la yàlla xëyee ci bi nga demee ba ci biir liggéey bi ngay liggéey nga demaat fexe ci ba mokk ci sa alxuraan am ci sa diine xam la raw nga nekk te mosoo sëy Instagram defe naa loolu la nuyoo ubbi leen ko ñoom jox leen bu ñu waxee ba pare nag ñu tontu leen ndax xamaguñu seen programme lan la ñu yëpp nag waa quartier bi gis ngeen seen xol seen dina tey guy ndax nag bu duggee si quartier bi ñu doomu quartier bi ñu def fii bu ñu déggoon mu def ko feneen lu nu metti dañuy xam ne fi ñu fi nga toll ci réew mi sim ko sim ko ko war a def dara waaye nag fii nga ko commencé

xam nañ sabab bi waaye moom wax ni mu ko bëggee incha allah ñu doxale ko defe naa par exemple loolu nag Allemagne ah ñu ngi nuyu nag télé yi taxaw bi yëpp waa Mar waa waa Argo TV je pense ñu ngi fi yore émission nga xamante ni depuis koor gi ba léegi ana Argo ñu ngi si biir télé yi émission yu am solo loolu ay émission yu am solo bëgg na ko diog waaye keroog bi ñu enregistré dañu ma mun loolu laa soxla parce que fii bu ñëwoon ko tey ban duo dina waaye comme ardo ñooñu ko ñooñu ko fii lu la si fii dañ leen di nuyu waa Ardo ak yeneen télé yi fii yëpp te di leen ñaan na àgg bañ ko ko hélas maa ngi lay ziar maa ngi lay ziar baax maa ngi delloo ziar hélas TV tamit ñëpp dina taxaw ba page mooy kàddu laa noonu rek nga wax bi am kontaan bu baax a baax a baax fii ñu toog tey bon mooy suñu fier lépp lu ñu am ginnaaw yàlla rek fii la ñu juddoo fii la ñu juddoo màggee fii suñu lépp fii la di ñu maanaam bu baax a baax te wax jàngee naa fa alxuraan wax yàlla lu am suñu kër ñu bànnee na ko si bànnee lay taxaw moom mooy ñëw taxaw def ci wax ñaan yàlla yokku taxawaayam sàmm ko sàmm njabootam waaw tey nag tànk yi moom dañ rek parce que lu fii lañ lépp waaw lu rek ma ne ko fii la mu ci ba tax na rek dañu am indi fi benn nga xam ne comme tabax jumaa war nga xam soxla temps rek ñu ñëwoon def suñu version incha allah ci mbootu bi ak teg ci benn enveloppe bi incha allah te dina gën a yaatu vraiment daal kontaan bu baax ci koor lañ nekk ay juma yi dal lool lool lool lool daan na xam naa bu ñu dagaay yàgg ñu wax rek ñu kii après ñu joxe caabi bi rek incha allah merci mbokk yi yéen a ko déggandoo kàddu yaa ngi noonu euh, Mamadou jërëjëf loolu yal na yàlla fay la na yàlla sàmm la di alxuraan naa fa naan loolu rek buñ si taxawoon rek jeex na tàkk wax ci jeex na jël ñu lay sant di la gërëm li nga def sa bopp nga ko defal li nga def bàyyi Ibrahima ba ñu ko defal. tey foo mu tëdd xolam ba sedd na guy ko seddal nag mooy lii nga indi mooy corbeillage xam ne tey doomu aadama yi ni ñuy dundee noonu la ñuy génne àdduna nga yombalal nu lan daa dem di ko luyee ji di ko jëli ne rek di ko luyee jéeg di si def cent mille di dem si àll bi di dem fu ne nga wàcceel na ko kon loo mag dàq yëpp nee na la jërëjëf ku deful dara doo dégg jërëjëf waaye lii nga def yàgg ngaa jëf waaye tey jii jëfal nga rëy na ci ñun Pape Ibrahima nee na mi laa sant mi ngi lay gërëm yàgg sa bopp yëpp ndax mën nga koo defee lu la neex mën nga koo yóbbu fu la neex grand Aziz waaye mu jël ko ànd ak yéen ngeen ñëw encadré ko mu andi ko fii ngay def muy Aziz doom ñaar. nee na doom ñaar ki ngay tiitaloo. ki ngay tiitaloo. ku lay ak ku lay tiital. ak ki lay tiital. am nañ ay doom. am nañ ay doom. boo leen seenoon. boo leen seenoon. sa xol bi. sa xol bi. ak sa fit bi. ak sa fit bi. day def rëf rëf. day def rëf rëf. gaawal kadi xaw lan nga indi waxal kadi. gaawal nga wax. lan nga indi kadi xam naa ne. lan nga indi am na def foofu kadi bu baaxul. dangaa gaawal nga wax te xam ni dangaa def foofu lu baaxul. xam nga doom boobu. xam nga doom jooju. yàlla maa la ko wërsëgal. yàlla la ko wërsëgal. mais bëggoo ko jur. waaye bëggoo jur doom joo xam bu ñu ko naa ko eh gaawal xanaa dangaa def lu baaxul. am nañ ay doom. am nañ ay doom. dangaa tiitaroo da nga leen tiit da nga leen tiitaroo ñooñu. dañuy tiitaroo ñooñu. Paba. Paba. foo dëkk. foo dëkk. interdis. interdis. xam nga Mawlo. xam nga Mawlo. man de maa ko jur. man de sama doom la. loolu tiitar. loolu mooy tiitar bi. bu bonoon. boo bonoon. maa ngi ko sant yàlla Moodu ñu ngi lay sant di sant di la santal bu baax yàlla. xam nga lu tax mu sant ko yàlla. nee na xam nga lu tax ko yàlla. lépp loo am. lépp loo am. bu amu ci. yar amu ci. bu yar amu ci. bu yar amu bu si yar dara amu ci. même combat. Moodu loolu même combat. boo bu muy bëri. bi muy bëri. boo ko seetee. ñoo gis maanaam def certainement euh, baadool. du def dara yi duñu reewante wala mu def dara lu jéggi charte yi li nga xam moom lañ ko moom lañ ko def. lu ko indi rek. lu mu indi rek. day toppatoo te loolu la ne. bu demee bu loolu jeexee. mu dem yoonam mu dem yoonam loolu indi dis la. loolu loolu mooy adduna. nee lii mooy adduna. man tam maa ngi ko santal yàlla. ñu ngi lay sant Modou di la santal yàlla. maa ngi koy tiitaroo de. imaam nee na ñu ngi lay tiitaroo. parce que démb. parce que démb. mu ne. am na ku ne ma. man de gis naa Modou Lo. man de gis naa Modou Lo. mu ngi ànd ak sa doom Amadou Ba. mi ngi ànd ak Amadou Ba. ñu ngi ñu ngi ànd ak forte. ñu ngi ànd ak forte délégation. ne man de kontaan na. ma ne kon sama xol sedd na. donc ah Modou Lo dem na ba foofu. nee na Modou Lo dem na ba ci Amadou Ba. man gën a kontaan. kon gën a dina kontaan. sa doom. sa doom. bëggoo ci moom dara. bëggoo ci moom dara. lu dul maanaa nga dégg ci moom lu am maanaa. lu dul maanaa rek nga dégg ci moom lu baax rek nag. maa ngi sant yàlla. maa ngi leen koy sant yàlla. 86 86. ngeen baal ma de ngeen baal ma. laa ko tudd laa tudd Modou mii. ko fii maa ko teg sama loxo bi ko foo tudd ko. mu ma dugg mais nag doon ah. ah. benn foofu ma ñëw xam nga foofu dañ fi taxawaat. te maa ngi sant si mbooloo loolu mu wax noonu mënuloo des joxe àllarba fi mu moom imaam waxuma ko déglu ma rek xaaral ma ne ma ñëw dina joxe àllarba gaa ñi moom ñëpp a baax soo ànd ñoom ñëpp nan la def àllarba xam nga lu tax imaam di duma parce que am as yi xam nga ñëw rek xam nga lu tax xam nga lu tax da ngaa tudd da ngaa tudd wóolu jigo la dëgg la sa maam doo doon dara énaa dëgg la de sëñ naa Mohamed dëgg nga xamante ni moom lañ bëggal yus muy le roi am nañ ay roi mais le roi des arènes bi nga xam moom la Sénégal ñëpp te sa ndaw dañuy jox addiya de. waaw barke Seydina Muhammad bu loolu wéyee. damaa tiitaloo ci moom. day tiitaloo ci moom. jàngal suma kër. encore Mourou ñëwaat këram jàng alxuraan. yal na fa yar. Mourou jël na sa kër ga yar. jël na fa teggin jël na fa teggin. doom yaa yaayam nag ku mu jur. doom nag yaayam ku mu jur. ngoone. ngoone di ko jur. bu juree nit. bu juree nit. bu barkiwul. bu barkiwul. bu amul barke bu amul barke. am na fu mu jaar. Modou Lo sa yaay moo la jóg bu juree doom te barkeelu doom bi am na fu mu jaar fu mu wër te jaar. xam nañu li mu dëkkee woon. li mu liggéey ci indi bi si quartier bii. xam nañu xam nañu. ñu ngi koy ñaanal yàlla. ñu ngi koy ñaanal yàlla. ci barke Alxuraan. si barke Alxuraan. ci barke laa ilaha illallah. si barke laa ilaha illallah. yàlla ak teggin bi yàlla ak teggin bi. na ko continué. yàlla yàlla na ko continué. te dina continué. te dina continué nag. ñun ñëpp ñun ñëpp. dañ lay tiitaroo.